Bienvenue sur Salam Vision. ndeysaan papam fekk na gaañu na jotu la fekkee kii am mais néanmoins vœu bi mu amoon yàlla mottali na ko parce que au début Ousmane euh, bi muy ba muy bi ñuy bi ba may xale boobu euh, métti na trop parce que dafa amoon volonté mais il était limité mais comme li ñu ma daan wax euh, qu'il n'existe pas un élève nul un élève par exemple élève dañ dañuy stimuler développement dañuy stimuler connaissance am dañ koy jàppale bu bu déclenché woo rek Euh, dina baax mu jóge Kaolack en quatre-vingt-seize ñëw ñu ne ma Ousmane euh, jàll na bac am na bac j'étais c'était c'était ma première fierté d'abord parce que xam nga fierté nit mooy lan mooy nga ji dara mu meññ en fait jiw jiwuma dara sax parce que je dis que je l'ai fait je n'ai fait que l'encadrer mais qu'il a un destin dans son destin dafa doon ñafe war yaar foofu aussi c'était un parcours bu nga xamante ne loolu lu mu waroon def la waa kii ñëw fii euh, avec Guissé gisee gisee bu mouvement ñu def benn conférence avec euh, euh, nu mu tudd ci euh, comment comment il s'appelle encore le gars bi yoroon LPS comment il s'appelle encore Librairie Papeterie Sénégalais Senghor Racine Senghor quand ils sont venus gisee na ma tu prends la parole parce que da nga war a def benn genre kii bu ndaw quoi ma defal leen benn genre briefing sur la citoyenneté le rôle d'un citoyen Euh, qu'est-ce qu'un citoyen aussi euh, société bi nit ñi dañ fi dëkk mais dañuy naan citoyen la citoyen mais est-ce que xam nañ lan mooy citoyen un citoyen c'est pas seulement quelqu'un qui nekk bu nga xam te ne dëkk-dëkk si koñ di lekk di naan di dox say soxla non c'est quelqu'un qui respecte ses devoirs d'abord et qui assume ses droits parce que société dafa la may droit mais aussi da nga am ay devoir tu as des devoirs envers la société tu as des devoirs envers tes frères envers tes proches envers tes parents envers ton ton ton ton ton ton directeur donc da nga am lu nga xamante ne société bi moom moo la ko jox lu nga xamante ne yaa ko moom ak lu nga xamante ne yow yow sa wareef la sa waru gar la yaa ko war a def fii nag da ngay ko ko lu man xam naa sama droit dañu xam ils connaissent même pas ce que veut dire droit parce qu'il y a trop d'ignorants aussi dans pays je m'excuse du terme il a trop d'ignorants il y a des gens qui n'ont nga xamante ne il faut se lever très tôt pour le savoir mooy que da ngay teel a jóg gis ne li nga xamante ne am na lu leen ñor am na lu leen tax il faut chercher toujours la man nag dans tout mouvement je cherche la crème dans tout mouvement je cherche la crème bokkuma rek si ñi nga xamante ne on les tire comme des moutons de leen yóbbu leen non non man dama bëgg ñu je je veux pas me distinguer aussi dans un mouvement waaw. ba bu ma bala ma radicaliser rek mooy dama dem ba gis li nga xamante ne doy na ma ma mën ci seey maa ngi jégalu ci wax ji kàddu yi xaw naa bëri mais je pense que ëmb na tuuti njëriñ. sëñ Tuubaa sax kii mooy sëriñ man Papa Ndiouga ma def naa Amérique 86 juróom benn président fekk na ma yow xam nga xam naa yàlla xam na bari ci démb nga ma ko wax lii du sama affaire waaye nag suñu Moussa lu mu taxaw mi ngi fi teew lu ñu bañal état si lu ñu fi bañaloon jamono doa dégéen ba Trump lu ñu bañal nangul nanu ko ndax si sa xarit muy sama sëriñ si Moustapha Mbacké duwa yéen ñaar xam ngeen ma kii tamit damaa xaw a jooyloo bi mu tuddee sama doom ndax taala siin ba mu ne yóbbu ma ko fa man te ku sama papa daa xam ku ne ci lu baax lu baax fekk la ci ku ne ci leneen nit leen mën na la caa fekk sama papa daa itte boo ko amee doo gàtt fan doo ñàkk wërsëg sama papa daa xam ne galaay gu toj moo ngërëmal waajur man damaa ma jamono man di di di may dox tëdd rek di dox ñu may noote kii jooloo na ma léegi nii barke si Cheikh Mbacke sama doom ma nga siin xam nga xam nga ma xam macha allah yóbbu ma ko fa nag bëgg lu baax ko yóbbu taam na ko yoo xam nga yaa ko tudd nag boo ko tuddee du ma ko tudd yan yaa defa sur daay man gàddu mbay nañ rafet njort nañ rafet njort ndax siñ sa siñ Moussa Mbacke mel lu ñu fa bañaloon nee nga ko wax nañu nee ko gis nga ma yow sa affaire baax na ba noppi ndax ko kenn du ànd ak moom sa affaire di kale sëñ Mourou Dieng sëñ Mbacke Sondoo sëñ Mour sëñ Mourtada sëñ Abdou Bakhe sëñ Abdou Hakim ñëpp dañu fa daan fekk sëñ Mbacke Sondoo oto ba gën a seer otage lañ ko daan dalal ba muy dem moog sëñ Moussa jëndal sëñ Moussa sëñ Mourou Moussa jëndal ko Lincoln sëñ Mbacke jëndal ko Lumbusin si mutolaa ñu fu jëlee ko lumbu sin suñ saay bu toogee lumbu sin ba mu daan dee gortag mbuur ñoo ko fa ñoo ko jënd ba daan tax daan taxana ji ñoom dañoo dund àddina suñ Moussa boo toogee moom doo doo gis mu toog ci ci kaw lu oyof la toog suuf moom dafa romb xam-xam day bind États-Unis cinquante deux état la benn président différent gën a état bu nekk sa loi bopp man nekk fa mu nekk fa burkina yo fa jawar ba am fay sët soxna ba am fay sët du ko ndaw yow yàlla yow li nga bëgg li nga bëgg ci yoon mi amiin yàlla na nga ko am man nag foo ma woo ma wuyu daal liñ bëgg mooy waaw ñu dogoon ñu rek ba président Sonko nekk président maanaam ba président Sonko jiite Sénégal waaw loolu daal lañ bëgg maanaam du ñu dogu jullit du dogu rawat na murit suñ tuwaa ne sama doom yi sama xasida yi sama jumaa ku ci feeñ ju too réer ku ci réer too feeñ ñun dañuy ñaan amiin yàlla nee na man bëgg naa ku ma ñaan man yàlla waaye bëgg ma kenn ku ma yàkkamti bëgguma ku ñaaw joon ba ma di état si carte bi si 900 francs laa amoon visa état si green card baa ngi sans passe ak per mun maa taal oto dañ dafa njot dafa njot mooy ñu yóbbu fan jëm maa ngi wuti waaye du ma am toogal barke si sax mbàkke liñ bëgg nañ ko am am nañ ko ba noppi bismillahi rahmani wali na siman alen su doowu laaw sifa an ma faylan yaaman yorob mu dafa kulo daay fala tufa dama lebut sifayi wadum alay masa saba waxtan tana sifa an ma falla si rabbina ba jaay mustafa sala alayhi rabbina kama safa subhana rabbika rabbi zati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yàlla may wér maa ngi nuyu incha allah ndax kat ndaw de mbooloo mi maa ngi leen nuyu kenn ku ne sa ak sa sant di leen ñaanal yàlla sunu teewaay bii yàlla nañ fi teewaay teewaay yàlla nañ fi teewaay ëllëg te buñ fi teewaat yàlla na doon mbooloo mu ëpp mii xam nga yëf yi ni mu demee la rek tey ndax yëf yi surprise la demee. mais koñ bi ñëpp a war a génn te ñëpp ñoo bokk li ñu bëgg muy kenn ki ñu bëgg muy Sonko di ko ñaanal yàlla nag ci xat-xat yi mu nekk ak ci li mu nekk yàlla na ko ci yàlla génne ba ñu taxaw bunt pale ne ko wiiw baa fu ñu toll di ko wiiw waaw te nag am nañ ci yaakaar te yàlla dina ko def ndax boo gisee ni mu tàmbalee rek yàlla du ko jël def ko ci xolu ñëpp ñëpp bëgg ko mu bëgg ñëpp di ñu xeexal nag di ñu dawal ndax bëgg suñu avenir ëllëg te loolu xam nañ ko ndax boo xoolee dëkk bi depuis ñu fi jaar ba nëga ni suñu koñ bi gisuñu fi changement changement amu fi dara amu fi te bis bu set ñoo ngi daw di génn di dem ak ñëw di lijjanti di def lépp waaye gisuñu dara lu fi dara lu fi soppeeku ñii ñaan yàlla nag bis bu ko fi yàlla tegee ba ma ba ñu def li ñu bëgg yàlla nañu defal lu kawe suñu njort te am nañ ci yaakaar nag ndax nit ki moom di ngay amee confiance ci moom mooy commencement rek te nii ñu ko gisee wax dëgg yàlla suñu xel dal na ci moom suñu xel dal na ci moom lool te yàlla moo ko def ci xolu nit ñi moo ñëpp bëggandoo ko nag di ko ñaanal yàlla fu mu bëgg yegg yàlla na fa yegg ak jàmm waaw gàddu mbay mii ñu fi andi nag dañoo bokk koñ bii mu yàgg fii lool sunu buntu kër yi këroo fii seeboo ñu ni fii bañ fiy sanc 1965 ba nëga ni ñu ngi fi moom mii lañ fi fekkoon ak sama ak keneen ak keneen ñuy def seen yëf mag ba jóge fi moom mii nag ñu woo dajale ñu fii xëy na dafa bëgg changement ci ñun bëgg lu ñu jëmale kanam moo tax mu àndi ñu fii te yaakaare ñu ko kenn nag ku dul ci Sonko lañ ko yaakaare ay ñaan yàlla nag moom li mu bëgg ak li muy yóotu yàlla nag ko yàlla may ba ñun ñëpp ñu xaj ci waaw ñu ngi sant ñëpp nag di leen gërëm waaw képp ku fi tax ñu lay sant. ñu ngi man nag mëneewu ma wax mënu foog ma sànni si tuuti ndax man sama xol bi Sonko si dee Sonko laa bëgg sama njaboot gi yëpp Sonko lañ bëgg sama borom kër bi Sonko rek lay nooyee Sonko lii ñu ko teg si réew mi ñun ñëpp la metti ba tax na ko àndul woon ak Sonko sax léegi ànd nga ak ma gi Sall daa tax Sonko am ayib soob ku bañoon Sonko sax instant bi bëgg nga ko ndax ku gis li xew nii te après li xew yëpp ñun la koy tegaat ñun jigéen ñi sonn nañ sonn nañ si ceeb sonn nañ si diwlin lépp lañ yokk kuy dem marché rek da nga koy yërëm sonn nañ dëkk bi am bëgg am gisuñu fi benn changement bëgg nañ nag yàlla jaarale ko si loxo Sonko bu fekkee nag ñun suñuy kàttee tax Sonko di so falu incha allahu rabbi Sonko dina falu ndax ñun ñëpp jox nañ suñuy kàtt Sonko waaw asalaamaaleykum nag maa leen damaa mënta wax maa ngi jéggal wax waxaat du bari wax ndax man damaa jógee Kër Massar depuis Kër Massar man fa laa dëkkoon du ma fen nag ndax ba ma nekkee Kër Massar Macky laa woote loon waaye ba ma ñëwee fii gis Sonko ak déplacement am ak dérangement am ak defaraatal dëkk bi ci laa féete ca Sonko te ñoo Sonko nag ba géej gi fer incha allah. waaw euh, léegi bi suñu grand frère. Euh, euh, mu nekk koo xam ne nii vrai la. jaba soxnaa mi ngi toog. soxna ma ngi toog ma nga nee toog ci ginnaaw. affaire bi de pour ñoom du ñuy def base bu ngand ak mais man dama la ñëwoon pour def ko benn réunion de passage rek bu jàll. moo tax ñëpp génn tey ngeen jox seen wàccuwaay man nag euh, yu mel nii gëñ naa jog di ci dugg ndax découragement ñi naan daw di topp ci wa Wade ci laa bokk carte yi ñu njëkk a jaay ci PDS ci banlieue bi ñu ngi ko jaayee carte Nimsaat fii ci marché 5 quartier boobu j'avais 18 ans en 74 ma daw di topp ci moom lu ne ñu koy def ci kaw ñu topp ci moom topp ci moom ba yàlla def ko mu falu waaye comme niñ koy waxee système bi tant que mi ngi fi dara du changé parce que moom it daa ñëw dugg ci système bi lañu doon bañ mu continuer ñu nekk ci loolu parce que mbir mi da ngay am gëm gëm xam ni lii la lii moo ñuy moo ñuy xettali ñu am ci gëm gëm bañ a xool leneen parce que lenn mënut a neex te naqariwul nu nag loolu moo ñu rey depuis indépendance ba liggéey négaloon nañoo passé fii moo tax dem ci politique dama ko sax kii man waxuma la ay politique mais daayira caaxaan sax dama ci dul demati kon bi ma kii bu heure bi ma waxee affaire politique dama naan ko bul dem la pritage bu ki dem bi ñuy dem ci kii bi ñu ne duñu dem ñu ne kon nangam nañ leen jox man leen ngeen demee lu ñu leen jox ngeen lekk ko te ñëw toog waaye man sama wóor na ma ne sama kër kenn du fa woteel ki Sall feneen noonu feneen noonu donc ñoom ñoom xam nañu dañ leen di nax xam nañu non xam nañu ñoom dañuy nax seen bopp parce que xam nañ ni li ñuy yóbbu nit ñi xam nañu la tax ñu nit ñi dem mais xam nañ nit ñi gëmuñu leen loolu moom il faut ngeen xam ko bi ci des nag laajal kii photo Ablaye Wade fu ma commencé an gis dama koy jël teg sa boo ñëwee sama néeg fa koy fekk mais bi ma demee ba am découragement gisatuma lu ma xam dama taxaw te nag su ma neexoon tey politique kese lu ne am naa ko mais dama dul def lu ma gëmut monsieur Diagne bi muy daan woote fii jeune pe waaw di woo xale yi ñëw nañu ba tàyyi woom benn yoon la ma sa demee réunion pees ñooñu doon topp ci moom amoon na lu ñu am mais loola dem na mais dama leen ni man du ma def lu ma gëmul man munuma ànd ak waa PS parce que boobu maa ngi topp ci Ablaye Wade bi ma demee ba toog nekk magum jëm amatuma lu may daw mais dama am gëm-gëm bu ma liggéeyul sama bopp itam war naa liggéey avenir u Sénégal avenir bi nag man ci moom laa ko yaakaar parce que moom laa gis mu am fit woowu am joom jooju parce que bu ko neexoon nëgë ni mi ngi mi ngi mi ngi ci lu ko neex am na ñoo xam ni ñoo moom a nekkandool ñi ngi ci lu ngeen nekk lu leen neex mais moom dafa xam ne lii du dëgg mu taxaw ne lii du dëgg di xeex loolu kon inspecteur d'impôt bu bu bu am 15 ans de ci ci ci ci service nekkoo milliardaire nekkoo millionnaire bari woo ay te da ngaa jub am naa ci ñeent ñoo xam ne nii ñoom ay grand frère ñoom ñoo ko seefoon ñoo ko seefoon samay copains la ñooy ànd guddeeg ci mais ñoom ñoo ma gën a wax lan musuma teg bi Sonko mais ñoo ma gën a wax lan moo tax ma ma ma li muy wax parce que ñu bari dañuy wax la ñuy wax bokkul ak la ñuy def. mais li tax ma gëm la muy wax moom ñooñu ñoo tax ma gëm ko parce que ñoo nekk nag moom nekk ay magam jiitu ko ci impôt ñu koy def loolu loo xam ne bugg koo def te ñooñu ay millionnaire lañu fi mu nekk ni ak keneen ak eneen ak keneen donc li ci des moom mooy mbir mu problème mu fit la ak jom ak xam li nga bëgg te bu la kenn découragé yéen lay waxal ah. man ak ku mel ni man mënatul daw di topp ci ay li ñu man may li ma xam ci moom ku ma mën a wax man dinaa la wax nga bu Sonko dee kii nga topp ci moom yéen mbirum Sonko ak état bi mbirum xeex la parce que ku fi taxaw naan leen ëllëg si nangam nangam nangam mais ñi doon dee ci eh, tooli xare yi lu taxan du leen doon aar seen bopp di aar seen réew loolu moo tax ñuy dee ci tooli xare yi mais buñ croisé woon suñu bara ba suñuy loxo ba léegi ñu ngi nekk ay jaam Afrique du Sud lu leen tey may indépendance du xeex ba ñu xam ne jaatagul jaatagul ñu may leen indépendance may leen seen bopp feneen noonu feneen noonu feneen noonu bu ñu ne leen bëggee jo def ay ay ay jaam na ngeen fippu ngeen taxaw bu leen kenn découragé fii ngeen toog ñu naan xale yi bu ngeen toppee ci politiciens yi Alex Sebe bu lay kii ba yow xeexaloo politicien sa réew ngay xeexal sa ngay xeexal li ma war a wax bari na mais nañ bàyyi ba beneen yoon jërë ngeen jëf merci beaucoup. Euh, président Sonko xam nga man nu may wooyee VIP activiste waaw parce que mouvement bu am lu am man bokk naa fu ñuy mas dem naa fu ñuy grévé dem naa fu bii ma sañaa taxawee taxaw naa mais da am lu ma gis loo xam ne nii ma ne kat sama quartier bii. il foog que boole jeunes yeeg maire ñi nga xam ne ni bëgg nañ Pastef ci benn bloc comme sa ñu yëkkandoo di dóorandoo waaw te li tax a jóg mooy xam naa ne Macky Sall fi mu jëm ak Sonko ñun sénégalais yi buñ ko se buñ ko seetaanee du baax Sonko yàlla na ko yàlla yërëm président Sonko yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla indiwaat ci sagoom waaye fulla jeeg fayda ji mooy ñun ñi nga xam nii ay sénégalais lañu ñu gëm ne président Sonko du boppam moo tax mu bëgg a nekk daa bëgg a nekkal réew mi daa bëgg réew mi parce que fi ñu toll nii Sénégal li attan xëy na yéen xamul ko waaye ñeneen am na ñu bari xam nañ loolu Sénégal kenn wootu fay courant courant bi ngeen gis nii Sénégal attan na kër gu nekk di consommer courant dix ans doo fay mais xaalis boobu waa APR li ñuy def mooy. sàcc goo xam ne nii ñëpp a ñu ci teg teg bët xool leen temps Covid 19 euh, euh, Covid bi lu ñu laa wax restez chez vous nous on va aller voler ba dafa mais loolu la mooy mooy gëmm leen ma sàcc ba loolu lépp feeñ président Sonko nag dëkk suñu nopp yi ñu dañuy yee dañuy wax dëgg ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm mooy le président euh, libyen Mohamed Kadhafi yàlla na ko yàlla yërëm mooy le président de Burkina Faso Thomas Sankara yàlla na ko yàlla yërëm Mamadou Dia man quand je vois président Sonko je vois devant moi un Mamadou Dia xëy na l'analyse est tellement deep inside mais Sonko ak Mamadou Dia li bëgg c'est pareil quoi Sonko euh, Mamadou Dia a été sacrifié par Senghor Sénégal dafa tardé on est en retard te yàlla daf ñu daf ñoo barkeel mee ñu ñu loo xam ne nii Sénégal li am bari na moo commencé ci côté humain humain laa humain nit ñu baax ñu fi nekk ñooñu nag yàlla mais am na ñu naan sa Sénégal am na am na prophète ci maadi kon nag bu ko ay nit ñu baax yore woon noo kon tubaab yi ñoo ñëw fii di immigré mais jël suñ xaalis bi di sàcc. du yóbbu Europe di denc Suisse xoolal doomu Macky Sall léegi boo boo nee ñaari baat ñett mu yëkkati million jox la Farba Ngom laa gën a mere ñëpp Farba Ngom Farba Ngom laa gën a mere ñëpp talib mag bi laa ñëw vers les années 2000 ñu koy may paas ak ndékki léegi c'est un milliardaire Amadou Sall boo xëy ñaari baat ñett mu jox la Mansour Faye ah? waaw. fii boobu tëyeer nga. waaw. waa waaw léegi nag ay milliards la yore. waaw léegi nag gouvernement boo xamee ni nii bu fekkee ni sàcc sa bu doon nëbbatu bon nga mën a tëkk ak moom. léegi sa man j'ai porté plainte contre j'ai porté plainte contre ma waaye woon na j'ai porté plainte contre Mbaye Niang dama dem ba tribunal porté plainte affaire nag bi. j'ai pot kii baa ngi fii sax moo ñu dem dem naa ñu ne ma xaaral bés boobu nga yow waaw billahi wallahi kon nag ñun suñu bopp ah ñoo war a gëm ne vraiment yàlla daf ñu indi sonko pour ñu accompagner ko man de vraiment Gade Diouf en tant que président VIP ndegam sama bakkan bi mi ngi ci man maa ngi ci sonko ah walaay ni kenn bañu ko ñoo ngi nii waaw voilà jërëjëf yow xaaral buñ pare man billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi salaa salaam ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla tamit euh, li nga xam ne moo ñu dajale mooy président Ousmane Sonko doon président Sénégal yàlla ñu ko yàlla defal deux mille vingt quatre ñun ñëpp ñu fekkee lépp luñ ci mébétit ci lu baax yàlla defal ñu ci lu kawe suñ njort ñu ngi sant yàlla biñ fi ñëwee. fekk fi ay patriote ay gor ay jullit ay nit ñu baax ñoo xam ne ñii seen réew moo leen soxal léeg-léeg di nga dem ci bërëb nga dégg ñu naan ñu jàppale Sonko su ko defee dama naan amaana gars yi xamuñu sax li ñuy wax mbir mi du jàppale Sonko du jàppale Pastef mais mbir mi jàppale sa bopp la tey bu doon nii Ousmane Sonko dafa jël xaalis di ñu ko jox walla ñi mu àndal jël xaalis di leen ko jox su boobaa di nga ne kat dañ koy jàppale parce que daf ñu jox xaalis wala daf ñu jënd mais non non moom Ousmane Sonko dafa ne mbir mi ñun ñëpp ci bokk yem dafa di lépp loo xam ne lii gis nañ ko il faut mu am koo xam ne dafa jiitu ñu organiser ko moom nag dafa jiitu. ñu organiser ko moom mu jiitu am ñu topp ci moom Pastef ki fa nekk tàmbali ba ak ki fay soog a dugg tey ñëpp benn lañ ndax lan benn objectif la ñu amee mooy réew mi moo leen noor réew mi moo leen tax a jóg kon lii ni yëfu ñëpp la am nañu ko fi sànq mbir mi bu doon mbirum koppar dong kon Ousmane Sonko. du nekk Pastef du taxaw pour Pastef taxaw pour mën a jël réew mi bu doon koppar kese kon fa mu nekkoon am na ko fa mais yàlla def na njëriñu réew mi moo ko tax a jóg te alhamdulilah sant yàlla bi ñu àndee koo xam ne am nañu yaakaar ci moom parce que lu tax ku jub la te loolu loolu ci boppam dafa doon loo xam ne lii dañ ko war a xoolaat mooy lan képp koo xam ne dañ lay dénk réew mi am na jikko yoo xam ne boo ko yorewul waruñu la dénk am na jikko yoo xam ne boo ko yorewul waruñu la dénk buñ lay dénk ngay jiite ay nit bay jiite réew da nga war a jub da nga war a jub man li ngay def am fit ñeme ragal yàlla surtout parce que boo ragalee yàlla am na loo xam ne doo ci dugg Ousmane Sonko bu ragul woon yàlla kon ñi fi nekk yor fi ay milliards ni ñooñu lay mel mais ragal yàlla moo tax ba tax na ñun ñaan nag moom amuñ ci xel ñaar te ñun ñaan nag moom tam noonu lañ ci mel moom na mu mel ñun noonu ñu mel bu ñu melul woon noonu kon ba tey du ñu ànd moom a commencer par secrétaire général mii nga xam ne moom la àndal maa moom ñu bokk doon leader Pastef ñu jiite Pastef mu doon troisième euh, adjoint secretaire général Mansour fay xaritam la ñoo màggandoo bu doon xaalis kese moom biram ko jëloo kër otoog lu ne am na ko man mii di wax ak yéen am na fu ma jaar foo xam ne tey man bu doon bu ma neexoon ma bokk foofu te su boobaa lu ne mën naa ko am mais loolu soxaluñu réew mi tegu ci yoon moo ñu soxal ba tax na ñu ngi leen ci woo di ci woo képp koo leen ci mën a woo ñun ñëpp ñu bokk jàpp ci Pastef xam ne incha allah bi bës bu sottee bu taxawee mbokk mi li ma doon wax léegi di wax ay libi mën nañ leen a raw libi Xaliil Xadafi ba mu fa nekkee demoon nañu ba libyens yi ku ci nekk am nga kër. libyen bu ne fin du mois da ngay dem banque ñu jox la salaire te doo liggéey santé étude lépp dañ ko amoon gratuite ndax lan pétrole be gaz ba nekkoon seen réew ñun bi ñu xayma actuellement li fi ne ëpp na ko ñaar ba ñett ëpp na ko ñaar ba ñett kon loolu day wane na tey loolu day wane na tey bu tegu woon ci ay loxo yu set yu jub kon ñun dinañu romb waa Libye Qatar mi ñuy wax ci ay milliards mën nañ leen romb parce que wax li muy wax wax nii dafa dafa laaj dégg dégg dégg moom lañu déglu nag parce que yàlla billaahi sonn wax nii du ay tricage baal ma de euh, du tricage hmm. lu am baax yàlla moo ñu ko wërsëgal parce que ñu baax ñi fi nekk ñi fi jaar la Serigne Touba maam Alaaji Malick Bou Kounta Ndiassane maam Limamou Laye hmm. maam ñooñu fu macha allah lan moo tax ñun bëgg nangu nag ñoo bañ ñoo bañ leen la euh, ndar ndar euh, dama fay faral dem par fin dama fa am ay liggéeykat uh-huh. lu jege ñetti téeméeru liggéeykat fin du ma dem toppatoo seeni salaire ak yu mel noonu caaka njaay mooy seen almeer ya ci booru géej gi boo demee ci booru géej gi ci mool yi da ngay ci biir mu mel ni benn île benn dëkk gu ndaw ba ma leen laajee dañ ma ne noonu lële du dëkk waaye plateforme la boo xam ne gaz bi pétrole bi foofu lañ koy defa foofu lañ koy manqué ba pare di ko yóbbu mool bi daf ma ne ñun Sénégal yi nit ku ñuul suñ fa jegee suñu gaal dañ ñuy dóor bal ñu dee mu ne ma ñoom nit ñu weex ñoo koy sol ci ay bato muy continuer di dem te la am foofu ndar la am foofu ndar ay mbuur ak yeneen parti la fa am moo ko juróom yoon ba fukki yoon kon loolu day wane ne buñ jógee taxaw kenn waxatu ko xoola senegal léegi mu mat fukki at juróom ñun ñëpp seede nañu noon doo toog ñaari fan ñetti yoo déggul cent milliards fukki milliards vingt milliards ñu naan la déet jëluma lépp am na la fa des maag diw la ba kañ ba kañ kon nañ leen xam ne lii ñuy xeex ñun ñëpp ñoo war a maase bokk ànd xeex ko parce que bu doon dépense rek ak la ngay dundeek sa waa kër ñun am na ci ñoo xam ne ñi am nañ ko mais dañ ko fan ne ñukk mu jaral ñu sax léeg-léeg ñu ñuy xeex ba suñuy liggéey di yàqu mais dañuy taxaw parce que mbir mi ñun ñoo ko moom ay tubaab moomuñu ko sénégalais ko moom kon sénégalais yi ñu xam ko ñàkk xam na ñëpp maasa jóg taxaw ñu xeex li fi ne mu jóge fi mu tegu ci ay loxo yu set incha allah bi su boobaa ñëpp a ñuy ñee ñëpp ñuy ñee su boobaa yàlla ñu yàlla taxaw nag ba loolu nga xam ne ñu ngi koy mébét te bëgg ko yàlla jàppale ñu ba loolu sotti xam naa li ñu bëgg a wax yëpp macha allah xaju ci waaye yoon yemul ci benn te ñu ngi kontaan tam ci fusion bi nga xam ne moom ngeen def ñëw seey Pastef te incha allah rabbi doo leen kërëccu parce que Pastef melul ni yeneen parti man musuma def politique donte am naa ay parents yoo xam ne ay ministre ak yooyu yëpp mais musuma def euh, politique mais Ousmane sonk bi mu ñëwee hésité wu ma sax parce que dama ne kon man lii laa daan laa doon xaar te man ni ma ci mel ñu bëree bëri it noonu lañ ci mel kon ñu sant yàlla yokk taxawaay bi incha allah rabbi yàlla dina def ndam jërë ngeen jëf. na ngeen dem voté ku leen jox xaalis na ngeen ko lekk nag xaalis bi moomuñu ko xaalis bi Macky Sall moomu ko mbooloo ñoo ko moom yow miy jaay gerte caaf. gerte gi ngay jaay am na lu luñ ci coppati jox Macky Sall parce que ndox ma dañ ciy jël taxi dañ ciy jël benn taxe boo xam ni dañ ko yóbbu ci Macky Sall xorom sa am na taxe ndax pet oto euh, oto koy indi xorom si carburant bi mu kii dañ ciy am taxe yëpp li ngay def impôt bi euh, euh, courant bi ngay fay ndox mi ngay fay boo xoolee am na taxe buñ cee dindi dajale suñu mboo aali xaalis jox Macky Sall mu téye ñu koy garder di garder ay doomam di ko fay jël suñu xaalis jox ko ni ko lii la ñu bëgg nga defal ko te la ñu bëgg mu defal defu ko au contraire tubaab yi la fi nekkal su ko defee nag li ma leen di wax yéen xale yi bu kenn bu leen kenn découragé mbir mi mbirum xeex la du mbirum yox-yox yi du mbirum dara bu leen kenn découragé na ngeen fexe ba yéen ñëpp ngeen am carte ku ci gëm sa kër sa doom ak sa baat ak koo xam na nga fexe ba mu ak am carte électeur bu dootee jotee nga nu ko demal wati ku la carte di la jox xaalis lekkal sa xaalis da nga xam fi nga koy di leen ziare di wax ni fii anga engagement rek laa fi gis ndax kilifa yu toll nii boo leen gisee tey bu njëkk dañ daan wax ni Ousmane Sonko ay xale rek ko topp waaye lii wane na tey di boo gisee kii xam ni doyen la kii boo gisee xam ni doyen la loolu rek dafa sedd xol kon tey jii li nga xamante ni si ne moom la nit ñi daan wax naan ay xay ndaw rek ko topp kon mag mag ñi comprendre nañ projet bi te xam nañ ko bu baax te man dama ragal ni sax mag ñi ñooñu ko gën a xàmmee dañoo toog ci kër yi di xaar bis bu rafet man moom laa gën a loolu laa gën a nangu man nag comme li suñu papa ji wax rek mooy xeex dafa dafa am stratégie boo nee damay xeex nit ki te li nga xamante ni si ne moom ngay xeex moom yoroo ko amul sens carte électeur ñëpp ko dañ ko war a dem wuti ji kenn ku nekk kër gi nga dëkk fexeel ba am fa majorité kenn ku nekk kër gi nga dëkk fexeel ba bu dee juróomi nit na ñett ñëpp ànd ak ñun buñ ko defee rek gagné combat bi li may wax jigéen ñi moom mooy yéen jigéen yi man côté bi ngeen mane mooy yéenay daje ci mbootaay yi yéenay daje ci xew yi ngénte yi takk yi lépp yéen ci daje képp koo xamante ni si ne mën ngaa fexe ba indi sa moroom rek taxawal ci loolu ndax loolu rek la combat bi laaj jeunes yi leen rek laa am ci lu may wax mooy fi nga xam ne ni fa lañu suñu président Ousmane Sonko teg bëtam ñu naan dañuy xaar bis bu rafet it daa am lu ñu fay yóbbu de lu ñu fay yóbbu de du ay ay ay ay wax nii nii nii nii nii nii loolu yóbbu ñu fa de daa am lu ñu fay yóbbu ndax kii mu jàkkaar lool da koy bëgg da koo bëgg a faagaagal ba bis bu rafet ba ñuy xaar du ko fekke kon ñun jeunes yi nañu taxaw mu loolu ba a am jërë ngeen jëf. Pastef dafa andi benn affaire mu ne éveil des consciences ak transformer les mentalités ñun jeunesse ñu am benn slogan bu ñuy doxee muy chaque génération à sa mission soit la l'accomplit soit elle la trahit donc ñun pare nañ pare bi nag nekku ni dañuy dem jàmmal wala dañuy dem xeex ji mais dafa am tubaab bi benn wax bu mu wax mu ne la violence est l'arme des faibles mais quand la violence s'impose on doit répondre par la violence tey lépp li nga xam ne jeunesse bi pare na pour def ko rek dañ koy def defuñu ko nag parce que Sonko la mais dañ koy def pour Sénégal parce que Sénégal benn affaire la ñuy wax mooy Sonko bu ñu rëccee bu ñu rëccee parce que moom def na lépp il a tout donné il a tout donné nag jot na nag ñun jeunesse bi ñu won ko ni ñun tamit ñu ngi ci yow parce que comme ni ñuy wax sunu yaay tey nga jox sama yaay mi cinq cent a xartum jëndal ko benn saako ceeb ci weer bi la yem mais am na doomam bu nekk këram waxuñu la nga dimbali ko de mais am na ay diplôme yoo xam ne bu réew mi jaaree yoon rek ku si nekk di nga gis sa bopp ñun tey dugg Pastef xaaruñ si juróomi dërëm xaaruñ si juróomi dërëm xaaruñu pour usmaan sonk après bu faloo mu jox ñu poste déedéet parce que réew mi bu jaaree yoon rek ku nekk di nga ci gis sa bopp waaye nag réew mi nag bu pantee jëm côté bee ah waa côté bële duñ ci gis seen bopp donc bul bul bul tiit ci ndaw ñi ndaw ñaa ngi fi nekkuñu nekkuñu ndaw bu violent mais ndaw yu am fulla la yu xam lu ñu bëgg nag asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak ci santam di ci jiital Gàddu Diouf mi nga xam ni moom moo créer les volontaires pour l'indépendance et le progrès muy mouvement bu nga xam ni yàgg nañ ko xam ci Sénégal mu exister un peu partout wax na ko léegi Euh, borom kiy jaay gerte caaf mi ngi ci borom restaurant bi mi ngi ci ferrailleur bi mi ngi ci maanaam li ci ëpp si secteur informel lañu nekk ñu toog tey banlieue am bégte mu rëy dellu si fii ndax fii miin nañ ko mais ci beneen anam ndax defe naa ñu bare bi ñu jëlee kàddu tudd nañu commissaire boobu nga xam ni tey dafay wër di yàq deru Ousmane Sonko te defe naa ni moo daan toog fii di tagg usmaan Sonko waaye moo daan toog fii di xas président Macky Sall kooku nag du ñu àgg ci turam jaru ko waaye dama gis ku jël rek tudd nga turam ndax fii lañ daan toog kon tey mbégte la ñu am ci dellu si di wax lañu ñu daan wax changé wuñu benn yoon ba pare ànd seeg ku nga xam ni mooy président Ousmane Sonko nga xam ni valeurs yi ñu doon incarné muy fulla fayda fit jom ngormaanu dëggu yaru jub doylu loolu mi ngi ci usmaan Sonko nga xam ni moom lañ doon seet ca kële waaye ci kii lañ ko gis tey réew mi nag dañu toll fu nga xam ni ñëpp dañu war a jóg takku taxaw parce que dafa am ñu nga xam ni parce que Ousmane Sonko jub na gën leen jub ëpp leen fulla ëpp leen fayda ëpp leen fit tey dañuy ñëw di taxaw di ko tuumaal ba bëccëg ci yu ñàkk fayda yu nga xam ni ñoom ci seen bopp ñëpp xam nañ ni loolu dëgg la muy ñooñu nga xam ni dañ ko day jéem a porter plainte ba li ci am am ci ñuy réccu naan lii jaru ko mais nañu xam ni ils sont responsable de la situation que vit le Sénégal aujourd'hui il faut que loolu leer nañ tey mënuñu leen seetaan ñuy taal réew mi ñoom ñooñu nga xam ni ñoo indi li nga xam ne plainte la bu nga xam ni tey gàdd wax nga ko defe naa ni yow porté nga plainte waa jooju nga xam ni dafa luubal suñu vingt et quelques defe naa dem nga tey tribunal porté ko plainte ñi ko porté plainte bare na ñi ci bind bare na kon loolu tey warul tax ñuy jéem a taal réew mi ndax te nag dóor fayu te dañu sonal président Ousmane Sonko fi mu nekk mi ngi tëdd feebar am ay problème ba léegi delloowuñ ko passeport am te boo xoolee euh, contrôle judiciaire bi levé nañ ko parce que dossier ba jébal nañ ko chambre criminelle kon lu ñuy xaar pour delloo ko euh, kayitam passeport am dafa am droit jot ko waxuñu ni day dem faju ji demul faju ji loolu moom moo koy décider ak mbokkam ak partem waaye dafa am droit jot ay papier loolu doon lu nga xam ni lu am solo la lu ma buggoon wax tey ci jotaay bi parce fii ñu ngi Pikine ñu ngi ci banlieue bi ñu ngi fi nga xam ni fii la ñu dëkk ñun ñëpp parce que fii la ñu jóge fii la ñu soso waaye nag pikin dafa war a bàyyi nekk door dortoir ñi nga xam ni dañuy liggéey dakaar dellu si loolu dañu bëgg bu Ousmane Sonko jëlee réew mi ñu jël Pikine mettre ko en valeur parce que y a des têtes qui sont là y a des possibilités qui sont là y loolu yëpp dañ ko war a développer yàgg naa wax ci secteur informel bi fulaaluñ leen faydaaluñ leen te ñoom ñoo yore économie bi muy transport muy chauffeuru taxi yi muy euh, jaaykatu gerte yi comme ni ma ko waxee muy maçon yi muy mécanicien yi ñooñ ñëpp ñoo yore économie réew ndax liggéey moo yor réew muy secteur privé ñooñu dañ leen war a fulaal mënuñu nekk di jël ay entreprise étrangère di leen indi fii Sénégal ñuy jël suñu ay richesse di dem Mohamed Diatta wax na ko léegi pétrole bi ñu am narut a jëriñ Sénégal te loolu jaaduwul gàdd wax na ko léegi li ñu am ci pêche agriculture ak élevage bu ñu ko développé Sénégal mën dumbal boppam mais dañ fi nekk di caaxaan ba bëccëg suba ngoon jël suñu ay milliards di ko lekk ba pare di porter nit ñi plainte di sonal nit ñi loolu dama ni na dakk léegi léegi léegi léegi te waa Pikine dinañu ko dakkal bala may ñëw fii di toog ànd naa gàdd def nañu visite ci kër yu bare yu nga xam ne ñu ngi bokk ci pi ñun ñoo dem fekk leen ñun duñu ay politiciens yu nga xam ne dañuy toog ñu ñuy fekk si fi mu ne def nañu ay kër yu bare avant ñuy ñëw fii lii conclusion la bu nga xam ne dañu ñëw rek sànni ko ci mais waxtaan nañu population bi donc tey maa ngi présider euh, cérémonie de fusion entre waa volontaire pour l'indépendance et le progrès muy pi ak Pastef les patriotes parce que VIP tey à partir d'aujourd'hui bokk nañu ci ñi nga xam ni ay patriotes lañu yàgg nañu doon ay patriotes yàgg nañu am fulla yàgg nañu am fayda waaye comme man ni ma yore woon sama parti ñëw seey ci Pastef noonu la ñu ñëwee seew ci Pastef te Pastef dina leen teeru dina leen teral dina ànd ak yéen pour liggéey réew mi maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf. taxaw yéen ñi ñëw fekk si ma li nga xam ni moom laa bëgg a def mooy en tant que président VIP les volontaires pour l'indépendance et le progrès dama bëgg suñu mouvement bi seey ci Pastef yàgg noo na nekk Pastef ga mais du ñoo bëgg mu nekk loo xam ne c'est officiel moo tax ma woo sama ka xarit sama ka maanaam boo xamee nii man nag moom on a fait plus plus que dix ans daanañ dox ci mouvement VIP avant lii kon nag tey bu amee vraiment jot jooju ak fulo boobu ak détermination boobu ñoo bokk ci euh, passé parce que damaa gis lu ma ko jaral monsieur Birame Khoudialo. merci beaucoup je vous remercie votre cas. donc maa ngi lay sant di la gërëm di wax ni Ousmane Sonko aussi da ngeen ko jox carte VIP am. parce que moom mooy premier VIP. du Sénégal dëgg la jërëjëf. damaa damaa fàtte loolu. <laughs> am na benn carte boo xam ne nii. spécial spécial. Ah. VIP. Mhm. président Ousmane Sonko. Mhm. incha allah dinaa ko yëkkati teg ko merci beaucoup jox président. jërëjëf ñu ngi leen di gërëm di leen sant. merci beaucoup.